benn mooy jigéen ñi nga xamante ni dañuy jóge dëkk ba ñëw fii war a waru liggéey yàlla dogal ñu basculer dugg ci beneen métier di jaay seen bopp maanaam kii daf ci nekk koo xam ne dëkk koy dund waaw dafa nekk dëkk ba papaam ak yaayam génn àdduna mu amoon njëkk divorcé ak moom am ñetti doom mu jóge fa ñëw di liggéey si Dakar du ma ko ci jugé nag def na ay erreur yu bari mais mais ñëw di liggéey si Dakar dem ci pa yi nga xamne ñom ñoo joxe jank yi pa bi jox ko ben waa joxante célibataire la. pour mu liggéeyal ko pour mu liggéeyal ko liggéeyu kër. waaw mhm. mu commencé liggéeyal waa ji première fois bi waa fexé na ba viol na ko ci limu wax. Mhm. sàkku na ko egg na ci kawam bu mu fa joggé bayina na lu baax lu wax ba mu bayé dem na tok quelque temps dellu dëkk ba affaire dëgër mu ñëwaat waa ji woowaat ko mu demaat ca waa encore. di liggéey di liggéeyaat waa sakku sàkkuwaat ko encore. deuxième fois bi nag mu gedd dama wax ko paa bi paa bi ne ko dama yàqal sama liggéey ci li mu wax gis ay moromu jigéenam nag ñooñu dugal ko ci mbirum njaayam seen bopp bi. mu bàyyi liggéeyu kër gi. dem ci njaayam bopp ci liggéeyu néeg bi waaw. du ko daaw. Hmm. te fi ne nii nee na lool du ko bëgg bàyyi parce que bëggul di jaay boppam di jox ay njabootam. ñu ba nañ baat bi rek. waaw déglu ko. mënuma cee waxtaan ak kenn sama yaay dafa gaañ sama papa gaañu ma des ak samay rakk ak sama ñetti doom dama doon sëy yàlla def ma divorcé ak sama jikko sama papa gaañoo ma ñibbisi ma amatuma xaalis bu ma defee commerce ma doon def damaa dem uti liggéey jànk dafa am benn paa bu joxe liggéey ma dem si moom mu utal ma liggéey boole ma ak benn xale bu góor boo xam ne célibataire la mu ne ma kooku liggéeyam ki méttiwul te dina la jàppale ma ne ko waa ñu waxaale mu ne ma dinaa la fay soixante quinze mille ma ne ko liggéey bi lan la mu ne ma liggéey bi mooy danga may fobeeral fi ma dëkk bale fobeere su ma soxlaa appelé saa nga toggal ma reer nga toggal ma su ma amee yu oyof may fóotal nga fóotal ma ko ma ne ko waa amul problème ma may may ma saa yi may wàcc mu yëkkati 2000 mayoon ba benn jour ma ne ko yow li nga may may nii dafa mu ne ma comme da ngaa yore say doom waa am nga ma ne ko man sama doom yi sax nekkuñu fi ak sama rakk yi ñu ngi mu ne waaye fi nga dëkk nii boo demee di nga jënd ma ne ko waaye lii dafa bëri li may jox ne toujours mu ne dama laa bëgg a jàppale rek ndax dama laa yërëm ma toog ba benn jour géy naa fa un mu fay ma 75 000 yi jour samedi la woon may wàcc ñu fay ma soixante quinze may ma paas trois mille ni ma jëlal taxi bul dugg kaa sax ak sa xaalis bi jëlal taxi ma dem noonu dem jël taxi dem ñibbi ma yónnee sama rakk yi li si des ma jël ko fayee ko location parce que boobu dafa amoon ay jànk yu ma bokkaloon ci néegu jànk laa nekkoon ñu bokk bu weer bi dee ñu côté sa fay ma continué di liggéey deuxième mois bi mu toog benn jour mu ne ma tey nga di nga guddee wala boo guddeewee nga fanaan fii nga ma ne ko man de samay morom xale jigéen laa bokkal néeg ma togg reer defalal ko lalal ko taaw te ma raxas samay bool ma ne ko maaye ñibbi mu ne ma ay eh, fàtte woon naa de tàngalal ma ndox nga yéegalal ma ci kaw pour ma ñëw sangu ma ne ko waa ma tàngalal ko ndox yéegalal ko mu ne ma lalal mal sama lal bi bi ma sëggee di lal lal bi noonu ci la dugg si si néeg bi caabi néeg bi ma sigi bi ma sigee noonu di génn mu jàpp sama loxo bi ma ne ko bàyyi ma looy def nii mu ne ma man xam nga ne man soxlawu ma jànk sama jabar nekku fi daa nekk Italie lu ñuy gisee bariwul moo tax damay dem naan damay ut jànk ma ne ko man de loolu taxumaa jóg ndax man mun naa ma ne ko expliqué la kanaa la samay problème man mun naa ma ne ko jànguma liggéey daan sama doole moo ma indi fii sama papa daa gaañu sama yaay gaañu ma des ak samay rakk ak sama doom noonu daf poñe ma daaneel ma ci lal bi xam nga rek góor ak jigéen moo ma foofu ma paree ma ma ne ko ma def nii ma ne ko dinaa ko wax paa bi de ki ma booleek ma ma daal ma ragal ci laa toog toog toog ba ci yàgg ma dem ci ma ko yow de ma boole loolu mu naa ma ne ko kooku bugul jànk mu ne ma la la def ma ma expliqué ko pareegu ma sa paa bi ñàkkee ma kersa ne ma doo yàq sama liggéey waaw nii rek ngeen di def waaw waaye man mënoo ma yàq sama liggéey jigéen wax ko ku bëgg yàgg naa di ko jox ay xale yu jigéen te kenn mosul ñëw fii wax ma dara a dem noonu ñibbi liggéeyatuma de mu woo ma ne ma ma ne ko ah man kat li ma bëgg a def loolu mun a ko xaw ma ko dund boobu moom su dee loolu a ma dem ñibbi dëkk ba ma jàpp si yàlla mu ne ma waa ma la def dara maa ñu toogaat ñetti fan ma ma ko foofu ma encore jox ma ma ñibbisee ma toog di jooy parce xaalis bi may fay noonu pour sama njaboot moo tax te xaalis boobu bu boobu noonu ma di ko jox samay njaboot di leen ko lekkaloo ma arrêté noonu liggéeyatuma foofu toog toog benn weer mais xam nga Dakar rek dafa metti ma dem dëkk ba toog foofu ci yàgg ma gis xale yi sama rakk bi wàcc ne ma aw ma dañ maa dàq ma ne ah naa dem rek tant yu waat saas ma ñëwaat fii toog ma dajewaat ak beneen xale bu jigéen mu ne ma am na liggéey bu ñuy liggéey de boo si nekkee di nga am di nga mën a toppatoo sa njaboot di nga continuer waat sa commerce bi ndax am na xaalis nekkate liggéey boobu tamit ay ñoo xam ne dañuy jaay seen bokk la daal dem naa ba dugg ci de duma la nëbbu dem naa ba dugg ci parce barke deewu moo si mujj am na ko ma booleel ma dem foofu bi ma demee même chose la ma def jox ma 15000 mais dama ñëw tiim 15000 yi di jooy. te boobu sama rakk yi nee nañ amatuñu daal yi ñu sol waaw seen xaalis bu ndekki jeex na ma ne lii ma yónnee leen ko di toog ñu lekk ko ndekete man damaa dem jaay sama bopp ma toog di jooy daal ñemetuma sax dem si kër yi di liggéey te damaa yor néeg di ko fay mais su ma toogee tamit nii liggéeyuma te yor ay njaboot yaakaar ci man loolu mooy sama problème wax dëgg fa yàlla bëgg naa ko bàyyi ndax lii gënaluma damay toog di jooy ñaari fan yi nelawuma damay tëdd da sonn du ma mën a nelaw ndax ay xalaat ma jóg jàpp tutub di julli di tub si yàlla parce que man lii may def ni sax wallaay wallaay mënuma ko ne damaa sës damaa sës bi parce que doomu nit ku baax la lii waruma te lii waruma koo def jël sama njaboot di leen lekkaloo xaalis boo xam ne damay dem di di jaay sama bopp loolu laa bëgg ku ma dimbale jullitu yàlla yi ku ma si mën a dimbale Mohamed ñàkk <laughs> jigul gor jàpp ñàkk da nga naan <laughs> ji jigul doomu aadama ñàkk jigul kenn paas. ñàkk ji xam nga yenn saa yi nit dina def dara. Uh-huh. ñu xool ko ni juge ko fekk na au fond xëy na euh, bu doon yow sa amaana nga doxalee noonu. man pas seetlu non seulement du ma juger nit mais du ma bëgg kuy juger nit. Mm. parce que ñun ñëpp ay doomi aadama lañu. Mm. ñun ñëpp ñoo bokk ku ñu sàkk. Mm. xam nga lan mo lan mo lan mo lan mo jara ñaan ci aduna bu weso ak wér hmm. moy sutura sutura yàlla nit def na fi lu ne weng ñukoy koy ngawta ngawte di ko bu fu ne hmm. nit def lu ko raw te ken yëgu ko hmm. ça veut pas dire que nak def da bax de nañu yalla defay sutura fam bi mom lu mu bëgg ah bëgg na ko dimbal parce que bëgg na ci ndax bëggul di jaay xam du dundal ak njabootam man li ma jaaxal mooy baatu viol li ma koy dégg ci réew mi léegi bari na trop. waaw mais euh, xam nga Mohamed lu ñu banaliser la léegi maanaam lu ñu banaliser. xam nga léegi xam nga boo ko déggee sa dootu def dara. mais xam nga voyal moom paas ku ko banaliser rek da ngaa ñàkk jom. Ah. ñu lay wax dañ ko criminaliser. Mhm. di la wax ay fukki ati kaso. Mhm. ku ko banaliser rek da nga ñàkk jom. mais parce que am na ñoo xam te aussi bu koy dañuy am am emprise ci kaw ci kaw ki ñu koy def. xam nga ndaw si ci biir wax ji am na lu mu wax te dégguloo ko. Hmm. nee na dafa dem di ko am ku mu koy expliqué pour dem ci yoon kooku ne ko yow da ngaa am jëkkër ba tas xam nga góor donc boo demee doo am dëgg foofu la mentalité yi toll. <laughs> mentalité yi foofu lañ maanaam ku ku jigéen bu xam góor mun ñu ko violé. baax maanaam jigéen bi jàpp ko mun ñu koo violé. ma c'est-à-dire foofu la mentalité yu toll. pass et c'est malheureux. pass baax na. kii daal ku ko mën a dimbali mu jigee ci mu jigee ci ci ci li mu nekk nii parce que da doon jaay ay géej ki jën mu dem del ci am lu mu suturloo nga dimbali ko te yàlla rek tax nag ñii di la wonaan ay may ma ko ma takk kook ay nangam wax nangam tax koo jóg nañ ko dimbali mu génn ci li mu nekk Mohamed joxe sama numéro. man kay femme bi laa yërëm yërëm goo xam ne bon Baltine ak jàmm 77 150 17 17. nga ni balaan Baltine ak jàmm. <laughs> est